ñaar ci ñoom suñu ay camarades yu nekk université Gaston Berger bu Saint-Louis ñëw nañ malheureusement dooleeku ci lim bu takk bi nga xamante ne euh, boom nañ ko ay étudiants fii ci biir réew mi te di sàkku à que euh, yoon def liggéeyam ba képp ku takkee wala nga laale que ça soit de près ou de loin ci crime yi am te ñu lim ko fi mu mën ko leeral. ñu bëgg nag dugg waxtaan ak yéen ci xëy na condition yu atroce yu inhumaine yu inouïe ak traitement bi nga xamante ni c'est vraiment regrettable yi ñu jot a dugg muy le vendredi 2 juin 2023 bii ñu génn pour apporter plus de précision ci ñu mbir mi demee waaye laataa loolu soo leen ñu ko permettre ñu euh, Euh, rappeler leen parce que loolu tubaab bi wax naan le rappel profite au croyant pour que ñi ñuy seetaan bi ñu toog ñu mën a xam ni lii ñu teg xaaroon na te bu ñu yàgg topp yàgg ñoo suivre comme ni ko suñu doyen Birame doon waxee doon ko rappeler sànq war nga xam ni c'était une suite logique ñu ñuy jot a def ndaxte yéen a ngi fàttaliku euh, suñu arrestation yu bari yu ñu am ci réew mi rien qu'entre deux mille dix neuf ak léegi rek li ñu ci am ci arrestation su matul euh, euh, fukk ak juróom maanaam quinze arrestation arbitraire su ko matul jege na ko commencé nag ci le vingt neuf avril ci le vingt neuf novembre deux mille deux mille dix neuf ginnaaw ñun waa Sénégal moo tudd priorité bu ñu ànd ak suñu ay yeneen naataango organisation citoyenne dem fi nga xamante ni mooy devant les grilles dans l'unique but de déposer une lettre de protestation contre la hausse injustifiée et illégale des prix de l'électricité à l'époque d'accord ñu ci woon ñu dem comme ni ñu ko constitution bi santé pour déposer suñu ay lettre yéen ñii ñëpp journalistes yu bëri yu nekk fii fekkee woon nañ bés boobu gis nañu anam bi ñu arrêté ne gis nañu également lu ci topp muy placé sous mandat de dépôt tey ñu ni kaso doomu neex leen ñu bàyyi nag liberté provisoire te ba léegi liberté provisoire boobu moom la ñuy waaye yéen a ngi fàttaliku également en juin deux mille vingt ah ñun am tant que ndaw ak aji bëgg réew ñun waa Sénégal moo tax priorité dañoo jëloon décision bokk ci ñi nga xamante ni ñooy dénoncer contre euh, l' implantation du statut fédéral bi nekk Saint-Louis maanaam ñu jógee Dakar dem ba Saint-Louis pour def une déclaration de presse sur les lieux nee nag ah gis nañu kat ñu ngi. réhabilité waat espace bi ñu koy wax place Faidherbe ñun de suñu gis-gis ak lu ñu jàng ci histoire ci suñu réew Faidherbe warul doon ku ñuy sargal ci réew mi Faidherbe warul doon ku ñuy bàkk ci réew mi ndax il a commis beaucoup de crimes rey suñu ay maam ñi mu violé leen sàcc alalu réew mi yóbbu France kon kooku suñ koy sargal di ko defar ay statue ci réew mi on dirait que dañuy saaga wala dañuy kokkal yi loolu ñu jëlee woon Dakar fii ñu dem saint bi pour montrer suñu indignation ak suñu désaccord par rapport ak statut FEDER boobu dañu mënoon a jël ñenn ci suñu ay kilifa yoo xamante ne ay référence lañu ci ñun ñu mën cee lim nag ñu bëri lu ko dalee ci Cheikh Anta Diop dalee suñu kilifa diine yi dalee aussi également ci Mamadou Dia mën nañ cee lim ñu bëri du ñu jeexal ñooñu xëy na ñoo gën a mérito ñoo gën a mérito FEDER bi boobu ñu ko defal ak place boobu waaye taxaw di def conférence de presse fan la ñu fekk jàpp ni yóbbu garde à vue période couvre-feu bàyyi ba minuit une heure ñu soog doon libéré génn ba ku ci nekk da ngaa mujjee dox ndax gisoo taxi gisoo dara couvre-feu lañ nekkoon juste pour vous expliquer rek un peu cette entreprise de persécution ak d'acharnement ak de liquidation bi nga xamante ne ñu koy subir boobu ba léegi ba mu aboutir ci lii mu aboutir te dinañ ci dëkkaat waaye tamit yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku également. le lundi 21 septembre 2020 fii ci grande porte bi université Cheikh Anta Diop de Dakar yéen ñii ñëpp ñu jubali fekkee ngeen ñu bokkoon ci collectif ñun waa SNP pour xeexal les bacheliers yi am yi amoon seen bac depuis 2019 je vous parle de 2020 depuis 2019 ñu amoon seen bac kenn orienté wu leen ñu leen di xeexal pour ñu orienté leen parce que c'est leur droit ñu xeexal étudiants yi ñu orienté woon UVS université virtuelle bi Sénégal état lànk ne du leen jox seen ay outils de travail muy machine wala clé de connexion ci la ñu bokkoon ci xeex boobu pour ñu jox leen seen ay outils de travail ndax mënoo yóbbu nit université virtuelle ba pare te doo ko jox ay jumtukaay yu mu jàngee loolu nekk ay combat de principe waaye aussi étudiants yi nga xamante ne état bi daf leen orienté woon dans le privé ba pare lànk ne dafay privé bi ñooñu tamit ñu jub di leen xeexal pour que état bi mën a fay ñu mën a dem continuer seen jàng parce que c'est le droit le taxawaay boobu ñu amoon ci collectif boobu tax ñu génn buntu université war a dem animé benn conférence de presse yi ñu waroon def au nom du collectif ay takk der ay éléments du groupement mobile d' intervention ñu leen di wooye GIE ñun ñëpp xam leen histoire boobu nu mu demee bu ñu génnee ci grande porte bi sur la base de rien du tout sur la base de rien du tout ñu jàpp ni yóbbu ñu seen ginnaaw fourga nag vous étiez au minimum une dizaine d' éléments de GIE foofu du muy méttee méttee ba pare yemuñu ci yóbbuñu garde à vue au niveau du commissariat du point E desee nañu parquet ba ñu demal ñoom procès ndax ay charges yoo xamante ne yu doy waar yu ñu tegoon suñu kaw te dara amul mu nekk des charges fallacieuses muy lan refus d'obtempérer muy lan euh, rébellion avec violence outrage à agent mais bu ñu jàkkaarloo juge bi juge bi dañu ne lii ñu leen di topp yëpp dafa leen ci dara kon noonu la ñu xàññee suñu ay examen en deuxième année on en deuxième année à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar yemuñu foofu parce que li ñu yor ay preuve la parce que lii ngeen di jëf ay décharge la pour wane pour prouver un peu lii photocopie la original bi ñu ngi ci ci bureau procureur de la République lii certificat médical la incapacité temporaire totale de euh, de quinze jours lañu amoon à l'époque mais plainte yaa ngi ngeen gis nii ay plainte la yoo xamante ne ñaari plainte yu ñu dugaloon ci procureur depuis octobre deux mille vingt ma def ci ñaari yoon enquête au niveau de la section de recherche bu Colobane waaye ba léegi bu fi ñuy wax ngay bind on en deux mille vingt je vous de deux mille vingt et on est en deux mille vingt quatre procureur dafa jël plainte yi rangé ko ci tiroiram ci anam bu mu gën a yànjee d'ailleurs loolu lañ yàgg seetlu ci réew mi yemuñu foofu ak ñun ba léegi. le vendredi 4 décembre 2020 ba léegi ñu ngi ci 2020 euh, je pense que gis naa fi Mouhamed Diallo léegi du collectif ñoo am déposé woon nañu lettre d'information ce vendredi pour def manifestation contre la vie chère waaye préfet lantal ñu ko ci anam bu jéggi dayoo violé lépp luy texte lépp luy loi lépp loo xamante ne suñu ay àtt ak suñu ay yelleef la ndaxte motif fi mu joxe woon à méngoowul ak les deux conditions cumulatives yu loi 78 02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions yu mu wax ne autorité administrative yi administrative yëpp dañoo war a tënku ci conditions yooyu mu teg fa condition yi da gën neex ñu mënoon a braver jour là ñu def conférence de presse ne lu ñu braver dinañ dugal ak beneen lettre d' information waaye ñaawlu nañ ci conférence de presse boobu rejet bi ñu jógee fa ñu délégué ñu ñun man ci ñu ñu délégué woon ci laa bokk on était au nombre de quatre personnes muy les signataires ci lettre d'information boobu ñu dem préfecture de Dakar après notre conférence de presse pour déposer une nouvelle lettre pour le vendredi onze waa commissariat central ñu ngi may seetaan ñu ngi may dégg ñooñu fekk foofu jàpp ñu ci anam yu doy waar brutalisé ñu yóbbu ñu ci seen ay pick yóbbu fi nga xamante ne mooy commissariat Dakar Plateau. ñu laaj leen loolu ñuy toppee ñu ne participation à une manifestation non déclarée ñu ne leen nan la ñuy déclaré nan la ñuy manifester d'autant plus que ñun dañoo ñëw pour déposer une lettre d'information wan leen lettre bi mais loolu taxul ñu bàyyi ñu de week-end bi yëpp fa lañ ko passé pare dem tribunal jàkkaarloo procureur ñu dóor ñu mandat de dépôt ci lu mu amul benn preuve ñu dem fanaani kaso te période bu mu ñuy dóor mandat de dépôt parce que à la au niveau de la waree sa sa décision su wàccee ñëw jël si ko ànd ak ànd ak yeneen détenu ànd ak yeneen prévenu yi nekkoon ci cadre bi moment boobu wallaahi azim yàlla ma tiim procureur dafa may liberté provisoire bi ñu jàppee tuk yamba ak jaay yamba ne leen ñëw leen mercredi bi ñu àtte mu jàpp ñoo xamante ne xëy na ñoom ci li ñu nekkoon c'était te acte illicite boo xamante ne dañ koo réprimer mais manifestation kenn réprimer wu ko au Sénégal c'est un droit constitutionnel mais période boobu yëpp pour xoqatal ñu la pour persécuter ñu la di bàyyi ay délinquants di jàpp ay honnêtes citoyens yu ñëwoon pour def seen devoir muy déposer une lettre d' information ñu yóbbu ñu si kaso. yéen tamit yéen ngi fàttaliku lors des événements de mars deux mille vingt et un boobu ñu fekk université ba léegi d' ailleurs loolu moo sabab suñu dàq bi à l' université Sénégal nag ñun dañoo am droit ak sañ-sañ ñu mars deux mille vingt et bu ñu seetloo ni ñu ngi bëgg a jaay doole benn leader politique muy le président Ousmane te tey histoire nous a donné raison à travers son euh, projet ak décision jugement bi ñu génnoon nekk biir université saccagé wuñ de déedéet